parce que tamit nga seete téléphone ak seetal ki nga xam ne ni yéen a toog amul différence bu bëri bu fekkee loo mën la rek yow buñ la woowee mu nekk ba Japon war nga ko mën a seetal te warul mën a am benn problème loolu nag moom dañ koy def nag ñun fi mu toll nii lu xew la nag fi mu toll nii looloo xew nag parce que nit dina nekk ba bitim réew ñu seetal ko te duñu gis duñu dégg duñ la def appel vidéo duñu xam yaay kan te dinañ la seetal gis la wax la say sarax fajal la say soxla ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi teg bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si et maintenant bon visionnage. sa li ñuy waxoon boog yow mënuloo Lo ñu sang bam ba mu set boole koog Yékini boole koog Bombardier boog ah pour mu jël roi de arènes bi Ousmane Ousmane yow rek seetaanoo làmb waaw yow rek seetaanoo làmb c'est que Modou Lo bi ñu koy boolee kii dañoo xeex ja ba sonn mënuñu koo yëngal mënuñu koo fexe ba daan c'est làmb ji xeex xeex amu fi kenn kenn xew fi kenn kenn xew fi kenn fii mbër muñ fi jox avance da ngay dem préparer ànd ak say mbokk waaw da ngay dem préparer ànd ak say mbokk waaw lu la yàlla may nga jël waaw yàlla nag mooy maye ndam ak tamit yàlla mooy faral doomu aadama mais yàlla moom Balla Gaye ni ni ko yàlla def bu ngeen bëggee noppalu ba ngeen ànd seeg moom waaw. Issa Pouye Issa Pouye si tàng tàng ba loo ko wax Issa Pouye si tàng tàng ba wax tàng tàng ba la njëkk génn daan mbër yi li leen jaral man jaralu ñoom ma Modou loo ñëw na ba sama kër suul fa gàllaaj waaw daanaka te état ko yaa ngi nii jamono ji jamono ji muy bëre ku jàppoon dalay daan bi mu jógee si kii Modou Lo semaine boobu la ne Modou Lo ñëw na ba sama kër suul fa gàllaaj mbër yi li leen jaral boobu léegi état ko yi mënatu la am victoire ah te yooyu yëpp wax waxoo leen ko bien sûr damay man li ma si làmb laa ko te mais ak fii man fii gisuma fi message yu démb yi lire naa plus de quatre-vingts messages amul benn message boo xam ne gis naa fi làmb si pap pap nañ leen wax làmb tey te maanaam kii sa nga Gris Bordeaux ñun taxu ñëw jóg sax Gris Bordeaux dul bu doon mbër mu am solo sax ñu mun a wax ah waaw boo amee rakk boo xam te ne ki leen daan ci làmb dem na ba di ko laaj ren renoo ren saa Thiès boo ko laajee koo bëgg a bëril danaan la Eumeu Sène parce que toll na ni Balla Gaye toll li bëgg ak lan la gëm mooy que ne jël Eumeu bi daan Balla Gaye mu daan ko ki daan magam kon kay boo amee rakk bu toll foofu jàppale ko moo gën yi muy def nii na jàppale Sa Thiès nañ jàppale Sa Thiès waaw moom wéyam euh, wàllam passé na wéy na day mos rek c'est bëgg na bëgg na yéene baa ngi fi yéene baa ngi fi mais kattan bee fi nekkatul waaw voilà Cheikh Sa yaa ngi bëgg comprendre fu may waxee gis nga champion dëgg fu ñu koy génnewee dañuy xool Balla ba mu dajeeg Modou Lo non ba mu dajeeg Bombardier lu mu fa def ak li fa Modou def xool ba mu dajeeg Eumeu Sène lu mu fa def ak li fa Modou Lo def xool ba mu dajeeg Gris Bordeaux lu mu fa ak li fa Modou def yooyu ngeen di xoolee champion bi yaa ngi dégg ba mu dajeeg diw Bombardier nan la nan la fa Balla def Modou Lo du Balla rek de dam ni la fii mbër mu fi bëree kase kase yi mbër yóbbu boo leen di laaj sa kase bu gën a seer dañ naan la ba mu bëreeg Modou Lo la même Eumeu bu gën a seer Modou Lo Modou ko bëreel fii koo fi laaj rek sa kase bi gën a seer si say combat Modou Lo la lay loolu moom problème am la moom wax dëgg yàlla moom moom loolu moom bokk na ci ma génnee mu génnee mais du ngeen du ngeen gis Modou Lo génne Modou Lo moo leen ëpp kër téeméeri junne yoon gën leen xoolal keroog mën loo oto oto oto bu ñuy yóbbu dooy rek <laughs> range bu bu mu wàccee bu bees bi bul woon loolu kenn du ko gis dañoo ñëw ñoom mbër yépp xoolal noppi yéemu ci yàlla Yékini sax ci oto Modou bi la dugg billaay du ko ci ñaanal mbër da ngay nëbatu ngay nëbatu këram lagrose bi dañ koy seetaan dañ koy seetaan bu Modou bi fa la toog léegi waaw xam nañ loolu moo tax ñu bàyyi fi Bombardier xam nañ loolu moo tax ñu bàyyi fi Boy Niang di laaj loo xam ne mooy loolu du fay Boy Niang lu tuuti waaw yow Bombardier bu la daan di roi des arènes yow bëri ngaa Gris Bordeaux am nga ci moom victoire kay dama jëli Bombardier bi la daan jël ci yow roi de arènes mais nga bàyyi fa Bombardier ñëw di jël Gris parce que Gris jàpp nga ne nooy neex la ba pare courant mi ñëwaat mu ko nga jàpp ne ki yorul dara. gars buñ nax buñ nax supporters yi Balla Gaye yi Balla Gaye nañ bàyyi di di di di ay combat am nañ nañ bàyyi loolu waaw na bëre lu métti bu ku mënul mu tekk ngembam dem jàppale ji saa Thiès. loolu la war a def nag loolu la war a def gis nga mbor boo amee rak muy bore ngay bëre muy bëre ngay bëre nga jiitu ko ci làmb loolu am ci loo xam ne macha allah ay rakam dem ay ay ay ay moroomam dem ba ba raw ko ba fekk si la foofu noonu ci ci grand yi ba commencé di la laaj di la laaj ay combat ci nga war a xam ne nag am naa rak boo xam ne ñoo maase ak ak ñii xaaral ma dem jàppale ko comme ça mu fekk si leen xam nga loolu la war a def. waaw noonu la fa demee gis nga mbër mbër dangay ngay laqatu xam nga boo amee jour boo xam ne feeñ nga ko rek boos lay def. boos lay def waaye tout le temps tout le temps ngay feeñ tout le temps ngay feeñ nit ñi di la gis da ngay def ba dootoo def boos da ngay def ba dootoo def boos parce que da ngay fees da ngay fees ci botu nit ñi mooy loolu Modou Lo jabaram boobu pour nga gis ko ci ci média yi rek problème la c'est rare pour nga gis ko ci média yi rek rarement xam nga euh, Balla Gaye dafa fiir quoi parce que li waral mu doon filme këram boobu noonu xam nga di koy filmer parce que keroog émotion la gisoon xam nga bii Modou Mbaye demee foofu noonu xam nga ci këram bu bees boobu mbaaw loolu moo tax xam nga mu mu jënd kër bu bees après filmer ko woon nit ne man tamit dama am xaalis ma neexee ma jënd kër bu bu nice kër bu rafet xam nga dafa fiir mbër bu fiir la mbër bu fiir la. Balla Gaye mel ni mbër rek ma ko arrangé fi pour le moment mooy ki Gris waaw parce que xam naa ne bu bu jëlee Bombardier tamit defet rek la la ciy jëlee de defet loolu moom na leer ñàpp defet rek la ciy jëlee Bombardier mu ngi ne dafa diis ku am doole la ku am doole la xam nga kuy defaraat ay format mënu ko daan. Balla Gaye amoon na taa promoteur yi daan xiccoo promoteur yi dañ ko daan xiccoo xam nga waaye Balla Gaye mi ma gis mu ngi ci tànk année balance len rek moo mën a am Gris Bordeaux moo ko mën a sauver. waaw mu fu mu jàpp noonu mu bañ ko bàyyi waaye Gris Bordeaux fi mu jàpp bu ko bàyyee di dina gis beneen promoteur bu ko tegal moom ak digganteem ak euh, Lac de Guiers kon Gris Bordeaux rek moo ko mën a sauver pour mu ñàkk andi balance moom Balla Gaye waaye mu ci tànk yooyu en tant que bu ñu xamoon balaa kenn di am combat moom mooy njëkk am combat. kër la Modou Lo yor da nga mos a gis mu filmer ko sax génne ko ci internet bi. xanaa gars yi dem këram interviewé ko danga nga mës a gis Modou Lo ay këram li yor ci kër lakk jeexalu ko macha allah da danga ko mës a gis xoolal këram bi euh, Lac Rose rek gars yi dañ koy almadi fépp da gis mu champion noonu ngay mel waaw champion noonu ngay mel. Balla Gaye bi mu si toll mooy njëkk am combat. bu ne saison bi ubbi na wala saison bi mu ngi waaj ubbi promoteur yëpp daw dañ ci ñëw ñu ne ko yaa diw lañ bëgg waaw sa waay aj baar bi laaj lu ko neex promoteur yi du woote guddeeg bëccëg du dawa seen kat kat di dem kër Balla Gaye waaw boobu fa la toll woon léegi tollootu fa da ngeen di nangu dogali yàlla waaw Dakar du safaat da di nangu dogali yàlla Balla fa la toll woon tollootu fa Balla léegi fan la toll muy mos. tey mu am ndam suba mu am match nul gannaaw suba mu daanu fa la Balla Gaye tollu léegi làmb mu ngi koy bàyyi làmb mu ngi bàyyi Balla Gaye gëm loolu waaw neexul nag buñ leen ko waxee wala tom bi ma may waxee eh, <laughs> mu xaw a dëgër mais dara baal leen ma rek mais nag looloo am. waaw dëgg la parce que boo xoolee bala gay kasem kasem kasem bu gën a mag. ci ay combat am ci ci combat am ak Modou Lo ko bore de même ko Omar Sène xam nga kon Modou Lo bay bëre moom da ngay am kase bu seer xam nga kon macha allah macha allah. yow Balla Gaye nga xam ne champion boo xam ne boo amee combat dangay yuuxoo yuuxoo fu ne nga yuuxu foo ba Sénégal yëpp daw ñoo jàppale jàppale la jàppale la xoolal nu mu def ni daan mbër rek waaw fu ne mu dugg fa ku ne ku ne ñëw fu ne mu dugg fa ut ndimbal xool nu mu def Yékini booleeg Yékini àddina àddina la booleeg Yékini ñëpp mere Yékini rey ko mu dee deuxième combat bi Modou noonu tamit noonu rek la moom bu deful loolu du la daan fa la toll nekkatul benn champion. seen cachet bu gën a mag contre Modou Lo la ko bëre Lac de Guiers la même chose Balla Gaye la même chose. Gris Bordeaux la même chose ñoom ñëpp waaw ma ne te booy bi un mètre soixante lay mesurer quarante point yi dàllam quarante deux la waaw ba pare nekk roi des arènes actuellement kan moo gën a nekk kii champion saa yu ubbeekoo ñëpp ñi nga xam ne salle de gym lañ yor doon ay moniteur bu ñu waxee kan moo gën a doon athlète ci làmb ji ñoo la Modou Lo barki démboo Njaay rek laa seetaan benn gaayen expert la ci affaire yaram nee na Modou Lo mooy athlète bu gën a taxaw ci arène bi waaw même bu fekkee ne mu ngi daanu tamit moo gën a taxaw ci arène bi sa day liggéey fawul am fulla am fayda doo ko dégg ci dara loo xam ne lu ñàkk fayda la doo gis muy lambar lambariwul sàppiwul